ku ne xam na ni fan yëpp fukki fan ak nangam def nañ ko campagne ba dimanche bi passé lan defoon élection yi yàlla dogal na élection yi ñu ngi ko doon topp ba tey ci ngoon gi ñu am lu leer ci loo xamante ni ci li mën a wax mooy askan wi nga xamante ne ñoo demoon doon dagaan seeni baat ñun ak yeneen candidat te ñun demul woon coalition ñu demee seul boo ko gis-gis yàlla dogal ñi nekkoon ñëpp nekk ay coalition bi ñu demee ba nga xamante ni ngoon jot na bi ma jógee tribunal bi décompte bi jeexee ma xam ni résultat bi nga xamante moom laa jàpp ni mooy li am mooy xam naa ni yi Yewwi Askan Wi gagné na élection département bi loolu nag bu amee duma mën lu dul félicité waa Yewwi félicité seen candidat muy Fallou Mbacké encouragé yeneen candidat yi tàmbale ko man muy le benn Benno Bokk Yaakaar muy le candidat wàllu ak Ablaye Niane ñoo ñëpp mu encouragé leen parce que lii mooy jongante jongante bu amee dana am ku am dana am ñu ñàkk mais Sénégal Touba moo gagné département moo gagné kon maa ngi félicité encore waa Yewwi di félicité fàllu di ko ñaanal yàlla askan wi li nga xamante ni moom la ñu ko tànnaat pour mu continuer liggéeyam mu bañ a tas askanu yaakaaru askan woowu noonu. loolu moo waral bi ñu xoolee xam ne 602 bureaux de vote yi nekk ci commune Mbacké parce que cent 585 yëpp Yewwi gañe na ko gañe saajo xam na ni mënutuñ ko dàpp commune Touba 602 bureaux de vote la 585 yi Yewwi moo ko gañe gañe Sadio kooku mënutuñ ko dàpp ñun troisième position la ñu jël ci ces 602 bureaux de vote yi nga xam ne moo am Touba boo ko gis-gis moo jël troisième ci li nga xamante ni mooy commune bu Touba bi ñu demee ci àll bi boo ko gis-gis dañu ko fa gagné ci commune yëpp parce que am ñoo amuñu foon ay candidat mais bi ñu dëkkee commune boo ko gis-gis moo jël deuxième topp si benn Benno Bokk Yaakaar mais boo xoolee 77 bureaux de vote yi am ci commune commune bu Mbacké bi ñu ko rawee rawee nan yeneen ñi toppoon suñ ginnaaw trente à quarante vingt suñ différence mais bu ñu calculé yooyu yëpp mënatuñ woon a dab Yewwi fii nga xamante ni mooy ci li am yëpp. jàngat bi ma sama def rek mooy waxoon naa ni élection yi nga xamante ni mooy yiñ jëm dafay nekk loo xamante ni sans référendum la wala deuxième tour élection présidentielle 2024 askan wi tamit élection pré premier tour élection législative. élection présidentielle 2024 askan wi tamit message boobu dégg na dugg dugg na leen xam nañu ko moo tax tey ñi wote ñëpp ay lu si ëpp ay xale lan te xam na ni wat bi nga xam moom lañ wote nii mooy xañ ko dakaar xañ ko Thiès xañ ko Bambey xañ ko Diourbel xañ ko département Mbacké xañ ko Ziguinchor kooku jàngal la est-ce que dana si jëlee nag ay leçon kooku li ci kanam rawuli bët mooy xam naa ni daal fii ak dina dynamique bu continuer ñu gën a yaatal coalition bi cohabitation day am assemblée nationale élection deux mille vingt deux mois de juin deux mille vingt quatre Macky Sall même candidat bu mu fi teg day perte élection yi loolu moom mooy li wér observation bi le maire sorta Abdou Mbacké Ndaw nekkoon candidat commune Mbacké def na ko ànd seeg ay avocat incha allah dañu ñu dugal li nga xam mooy recours. cour d'appel bu cees pour que maanaam non respect parité bi nga xam am na ci liste Benno Bokk Yaakaar te gëm na ni liste boobu noonu même bu gañee dañ koy disqualifié ci li nga xamante ni mooy ngañaayam ndax respectuwul parité numéro 35 ak numéro 34. donc dafa am ñaari étape première étape bi mooy bi nga xam avant ñuy publier mën nga ko def bu njëkk mais deuxième étape bi bu ndee maanaam ba décompte am yow da nga def observation ci liste bi ak avocat te def nañu loolu kooku maanaam bii cour d'appel bu Thiès lañ koy déposé moo tax bii niñ ko defee nii noonu lañ ko war def ndax ñaar recours ma war a am bu njëkk bi avant ñu koy def fekk ndeesaa sa tout temps mënu ko def mais bii nag observation bi def nañ ko def nañ recours bi cour d'appel bu Thiès incha allah euh, li si kanam rawu li bët. loi dafa am dafa am solo ci réew il faut ñu respecter loi te 2013 dafa am maanaam loi boo xam ne dañ ko wate woon. man mii di wax ak yow en tant que vice président commission de loi assemblée nationale dañu wax ni bépp liste bu mu mën di doon boo respectul parité valable comme que respectul parité bi te moom si bopp nee na ñoom dañoo juum te loi xamul juum loolu moo tax ñun li ñu si yoon may dañ koy def bu nee nag ba yoon àtte lu ci yoon dogal ànd nañ si mais xam na ni daal lii nga xam mooy li am ci li si benn boo ko yaakaar ngir ñàkk respecté parité bi te yoon may ñu ni lii fii ngeen war a jaar foofu dañ fay jaar. àddina nag nii la kenn ku nekk sa ëllëg yàlla moo koy xam sabootuwuñu iñaanewuñu mais nag mbirum yoon yoon la